Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak internet yi ñu bàyyi xel ci seen info point ak seen info international ñu ngi leen nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey lundi di juillet ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi député yi bésub tey bi la ñuy li nga xam ne mooy projet bi nga xam ne kon moo war a modifier code électoral wante nag ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi daal nee nañ Macky Sall nekk nii moom daa sax saboté waxtaan yi nga xam ne kon euh, ñu ngi ko doon amal ci lii di dialogue confrontation ñu fàttali nag am na juróomi pan yoo xam ne ñoom ñoo bloqué woon lii di dialogue politique bi bokk na ci montant bi nga xam ne moom lañ war a fay pour caution euh, lii di question bi nga xam ne mooy question bulletin unique bi ka Karim Wade ak Khalifa Sall wante itam nit ki nga xam ne kon moom moo war a superviser élection yi te mu war a nekk nit ku indépendant président Macky Sall bésub tey bi day amal ab tukki li ñu naan visite de travail fële ca Mauritanie muy nag tukki boo xam ne benn fan lay doon loolu nag mu ngi koy amal ci jamono joo xam ne kon lu toll ci mille 1500 sénégalais nekk foofu la ca Mauritanie ñu ngi xaar seen wàll ci fond force Covid 19 bi nga xam ne ñu ngi ko bëggoon jot te jotuñu ko ñoom nag lu toll ci milliards sax lañ leen jagleloon. transport public bi tey ci dakaar am na ay perturbation ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur yi nga xam ne ñooy waa AFTU ñooy dawal bisu AFTU yi te ñu gën koo xam ci Tata bisu Tata yi ñoom ñoo grévoon li nga xam ne kon ñoom lañ doon dénoncé daal mooy ay dàq yoo xam ne li ñu naan licenciement abusif ñu ne ay dàq yoo xam ne daal dañoo gis ñu koy dàq seen ñooñ te ñu ko fenn wante itam ay conditions de travail ma yoo xam ne kon daal demewul noonu bu ñu sukkandikoo ci seen ay wax wante itam salaire yi nga xam ne ay yu tuuti la grève bi nag kon war nañ ko wéyal ba ëllëg ci mardi bi bu dee tolluwaay jàngoro coronavirus nag fi mu nekk nii daal cas yi day yokk yokk bu doy bu ñu xoolee sax ci semaine 4 jàpp 10 juillet konte nañ lu toll ci 2407 nouveau cas muy lu bare bëri ba léegi ci même semaine boobu am na lu toll si ñaar fukki nit yoo xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan te li ko sabab di jàngoroy coronavirus xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Afrique du Sud nga xam ne kon ay manifestation dafay wéy di am ay manifestation yu métti sax yoo xam ne kon euh, mu ngi fa commencé woon ajjuma gannaaw bi nga xamee ne ki fa nekkoon président di Jacob Zuma kon yoon teg na ko loxo manifestation yi tàmbali woon fa euh, fi mu nekk nii sax lu toll ci six personnes kon jot nañ cee dee manifestation yooyu nag mu ngay wéy di am di métti ba sax armée bi daa mujjee intervenir fële ca Mali nag ki nga xam ne moom la ñuy wax imam Mahmoud Diko nga xam ne sax moom moo jiite woon manifestation bu mag boobu euh, ci 2020 euh, ba ci mujj gi sax kon ci la coup d'état ba am ba président Ibrahima Boubacar Keïta kon wàcc ca pouvoir ba moom moom la di imaam imam di ko nag fi mu nekk nii daal daf ne yoon na def liggéeyam mm, ci nit ñi nga xam ne kon ñoom ñoo deewoon te ñu tolloon ci fukk ak benn xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek benn étude boo xam ne kon ONG Caminando Fronteras ñoom ñoo ko def nee nañ daal ci ci premier semestre bu 2021 bi lu toll ci 2100 personnes jot nañ faatu euh, ci lii di géej gi gannaaw bi nga xam ne kon dañ doon jël ay gaal daal ngir jéem a dem euh, fële ci Espagne. police bu Haïti nag ñoom nee nañ démb ci dimanche bi daal teg nañ loxo ki nga xam ne kon moom lañ jortu ne moom moo jiite. assassinat boobu nga xam ne kon moom moo amoon foofu ba sax ñu faat kii di président Jovenel Moïse euh, nee nañ ki nga xam ne kon jàpp nañ ko moom sax nationalité haïtienne la kon dañ koy jeexaleeg xibaaru sport Tëngéej FC nag fi mu nekk nii nekk nañ champion du Sénégal te sax euh, lii di championnat bi kon euh, jeexagul li ko waral nag mooy ñoom gannaaw bi nga xamee ne nag dooroon nañ kii di Stade de Mbour euh, ñoom dañ doon xaar lii di match génération foot bi wante gannaaw bi nga xamee ne kon génération foot dafa nul 1-1 loolu daal daf leen permettre sax fi mu nekk nii kon nekk nañ champion te kon lii di compétition bi jeexagul fi mu nekk nii nag Tëngéej dafa am 50 points. Euh, te sax deux journée rek ñoom moo des ci lii di championnat bi loolu nag day tax ba kon Teungueth FC kenn du ko mën a rattraper. Euh, démb nag euh, kii di itali moom moo dóor Angleterre ci finalu euro bi waa itali nag ñu ngi dóor Angleterre kon ci tiro bi gannaaw bi nga xam ne ñoom ñaar ñaari kon équipe yi football nañ match bu métti métti sax mu jeexee 1-1 ca gannaaw ko ñu dem prolongation.